ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت ودود كلي أبدا بالود ودامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma ñeenti fan ci weeru tamxarit ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaay yonente bi salallahu alayhi wa sallam fukki fan ak ñett ci weeru ut ci atum ñaari junni ak ñett ak benn ñeenti fan bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon ci ajuma ji rafet na ci lépp li nu ci gën a taamu mooy ku ca daloo ñaanu bis bi noo ngi muslu ci yàlla ci fitna la ca feeñ ak la ca nëbb naudu billahi min alfitani ma dahara minha wa ma batan xadiisu bis bi an zayd bnu saabit an annabia sallallahu alayhi wa sallam qaal taawadu billahi min alfitani ma dahara minha wa ma batan jëlee nañ ci zayd bnu saabit mu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na dee leen muslu ci yàlla ci fitna la ca feeñ ak la ca nëbb qaalu dee leen wax naudu billahi min alfitani ma zahara minha wa ma batan xaddis bi muslim moo ko nettali man